ne kondo guling, rendi ren rendi neex bu, dina do guling. Assalamualaikum. ndax li ma def sedd sama xol papa yat ma waaye sedday sa xol yow kaay man kaay tay tay tamit bo joy da bay joy da yo la joy yo la nga joy mom kata ya jaba yam dem man tamit tama jaba da dem eh len tawal keur gi da la len do man yow lay wër wa tam papa ndek te doxa mey ba pare ta dara taxul man ma bañ la ala amma job job job ala awri paka job way job jamais je n'a jamais m'a jamais frappé dedans et puis c'est tellement bien qu'elle est clé là il fait son frère jaami tay mu ngi bëgg a ñaaw de. tay ñaaw na ba nopp te day gëna a ñaaw na. nga ah. Ah, allahu akbar. suupu taaxew. waaw waaw walillahi alhamdu. subhanallazi yaqdi malakutu. c'est quoi ça. xam nga yalla ba nga yoré mu bayyi lepp ñew topp tay yara to mu def la jukkoy wax ak ñoom mottu dem yoon. xam nga Diop man la moo ma jaaxal. lu sen personne wara a ben nit na ko tungaañ. ma di yeen ci bir kër gi dina tang jeur weeru kóor lëmm laay def ak yéen. allahu akbar. eh. waa Aras nuyu na Aras. Ayas yow ni tey malaaka yi sax wàcc nañ pour màggal bis. yow yaa si ñoo xoo baay ba sama jaabale. may jàmbaar may jàmbaar. man maa gis mu njëriñ. bu commencé dem di tuddee bi su ko defee nag man nag labbayk allahumma boolu gande boolu reer yeeyu koy gi yee yow mon mari beau frère là il a mangé os os quoi il très lu lu lu nee na gis nga ne lekk nga bu baax mmh. xanaa nag léegi wér nga përët gis ngeen ni mu ak yaw ni waaw waaw jinne yëpp bu guddé ci mom la finance la si jek jekk bëdi day tax nanu genn kër gi lu ko mooy yéen ay jinne ngeen do dinañ genn bismillah de prop bismillah de prop rahman de prop rahman de prop rayim de prop rayim de prop maman sen day man maman sen day man sen bay genn génn ba nga tagal daw nga daw bismillah de prop bismillah de prop rahman de prop rahman de prop rayim de prop nga daw maman sen day maman sen day maman sen bay tay rek lay dëgg tay rek lay bay ngeen ñi ah ay sama day waaw lii nag kaa la ne leen ko ndoguli rendi na ne rendi na yàggu